macha allah. lii de laay def. yow yaa gars yi gis ngeen madame Bane ngeen di gis nii. gars yi soxna Abdou Khadre yi ba maa dégg waaw doo ko dee ñaanal ñu dafay ñu ñaan eh c'est si affaire bi film la. yaa ngi ay doy ay doy baal. amal xare ngeen di gis nii macha allah le grand photographe. Marie elle est là, vous avez vu, c'est la femme de Ndoye Bane. ah donc mi ngi eh yow Ndoye Bane am na nga nuyu ñii. Oh. macha allah vous eh, avez vu yow. yaayu sëñ Bass Abdou Khadre ak maman maman Ndege. Khady Gueye doy baan moo tuddee maman déggeen si mère doom moo tax tey macha allah je me permets de faire en live ndax lii dafa neex gis ngeen soxnaa ma ngi nii Marie Bane yaayu nenne ah ma ngi allah donc moom la rek dafa topp kóllëre bi il fallait woon ñu leen ko ndax comme je dis toujours je partage tout avec vous et doy baan doy baan muyul fii baan yaa ngi kay baat yi tamit sagal ma sama page bi. moom moo sama page bu Facebook yaa jur sama yaay déedéet waxal dañu kontaan ñoom ñëpp a kontaan ndax li nga tuddee maman doom. ah kon ñii ñëpp ay doomam lañ. ñii ñëpp ay doomam nañu comme yow mais yow fi yow yaa ñu gagné ñun ñëpp. dama leen a yoxo. yow yow moom fi mu door nga moom ay ay ay ay ay gurpeñ. bi bi bi gars di couvre-feu. wallaay maa ngi liggéey dégg macha allah mu tombé au mois d' octobre ah bi maman wàccee liggéey waaye même bés bi muy mercredi kon nag maman rek moo ñëwaat ñu ngi koy sant di ko ñaanal Maribane moom itam di ko ñaanal maman de Cheba bi yàlla na suturandoom fan wax dëgg dama mos a xuloon moom mooy tey yow man 800 et quelque daaw ma ko sax am. bës bi bës la mais xoolal kër yi yow tey fim ne nii moom sénégalais nekkite bëgg nañ la <laughs> dañ ko gën a bëgg fim ne ah sama sama Facebook bi 9000 dans les buzz et là je vous montre ma femme gis ngeen macha allah waaw waaw ma femme adorée xoolal. le grand photographe mais Amar Khary loo wax ci bés bi. non kontaan ba pare lii dafa fort. Uh-huh. ñu ne tëf du hasard. ku gis plateau bi. Mm-hmm. xam na lu allah war a mën a nekk. gis ngeen de ah. <laughs> merci gis nga <laughs> yëfi déggeen tey maman rek a ñëw donc la je vais présenter la meilleure amie de maman da di ko dégg tout le temps muy maman Kinouska ah donc euh, euh, moom daal ki ne ndaw bi ngeen di dégg mooy xaritam fa la doon dem di lekk ceebu jën ak tànki di waxtaan nan damay fanaan bu ñu ñibbee muy jaay nan bu la neexee nga ñibbi fii laay toog mi ngi nii moom itam ah maman Kinouska comme vous la voyez Euh, fidèle ah bi ma moo demee ba tey bàyyiwul. te na wàcc si de ñi bëggoon teral seen yaay ji enveloppe yeeg valise yeeg ah bëgg naa fi ne nii ñu def ko benn défi fii ba euh, maanaam jàngam jardin ba ba ba ba terminal gars yi dama bëgg ñu jël ko en charge waaw lii daal nañ ci dogu lii laa wax. na yëpp wàcc ñu fay lépp ñun toog jàpp suñu ñàmbur. waaw mel ni ku deful dara lii la lii lii c'est noble en tout cas merci pour les cœurs Aïssatou Mbaye ci Ami Camara merci beaucoup ah la star xool leen ko donc maman loo wax ci bés bi. Ah, moom <laughs> la waaye yow yaa ko nekkatul delloo. wallaay wallaay mais bii nag moom. bii ah, bii moom macha allah. <laughs> tu es excité. en tout cas waaw kay tey maa ngi ci état daaw ma yendu xew waaye tey am naa fitu yendu xew. <laughs> mais en tout cas merci pour tout merci de pour les cœurs merci pour les messages merci pour les love les make-up alors vous avez vu hein donc Ndoye Bane il a su faire un bon choix gis ngeen madame macha allah donc euh, jërëjëf.

Mami Lay Diop Maymouna Fofana Monatal yi fi daal surprise la ci kanam nag la yëfi ni dara gën a neex ndax ku ne yëg na ko te ku nekk bëgg nañ participer télévision Futurs Médias dina ñëw en force rawatina nag ay jege ñaale ak ay mbokk aja jegéen ñu ko yàgg bëgg ñàkk ko sopp kon daal mi nii merci Diouma je vais arrêter le live <laughs>